mbokk yi jullit yi ñuy seetaan te di ñu seetaan ci seen seen CMT TV bu Grande Mosquée de Touba ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara di leen ndokkeel di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan sunu borom mu yàggal ko fi te wéral ko ñuy am mbégte bu baax a baax di ñëwaat ak yéen ci seen émission bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy tuddee gàggantiku gàggantiku nag émission la boo xam ne dañ ci dañuy déplacé wu dem ci ay boromi xam-xam di seet benn laaj bu amal solo jullit yi ngir ñu fas ko yéene laaj boroom xam-xam boobu ngir mu gàggante ci xam ngeen ne suñu émission yi jàll ñu ngi woon ci làpp waaye nag euh, ñi ngi ci weeru saxbaan xam ngeen ne sorewuñ lool weeru ramadaan moo tax tey sunu émission gàggantiku tey dañ koy jëme ci wàllu koor gi euh, tey jii nag ñu ñëw fii ci al ashar Euh, ci kër Serigne Cheikhouna Mbacké mu Serigne Abdoul Wadoud ngeen miin ko lool ci seen bi ndax boroom xam-xam la di mufti di ànd ak ñun ci liggéey bi saa su nekk tey jii nag fi la ñëw ngir fas ko yéenee jébbal suñuy laaj yi ñu war a gàggantikoo mu jëm ci wàllu koor euh, laaj yi nag ñaari laaj lay doon bi ci njëkk mooy lan mooy koor ci boppam jëmmi koor ak ngëneel li nga xam ne ñaareelu laaj bi mooy ngëneel li nga xam ne mën na koo am ci jullit bi incha allah kon su ko defee dañuy bokk ànd ak sëriñ Serigne Cheikhouna euh, jébbal ko suñu kàddu Serigne Cheikhouna asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu. sëñ Abdou Lahad noo ngi lay delloo nuyoo di nuyu yépp ak fu di nekk ci àddina si di gi nuy dëgmal tooy waxtaane lu ci jëm ñaan yàlla ak nu ci ak jàmm akuk tal ñaan yàlla itam defal nu jàppandal ba mu defe ko ni mu ko bëggee ñaan ko itam mu defal nu lim ci digge ci aw yiw lépp koor nag nin ko xamee mooy bàyyi lekk ak naan ak lépp lu yàq koor li tàmbalee ci bu fajar jotee ba ba jant bi di so diggante boobu tam ànd ak yéene ndax bu àntug yéene du tax mu tudd koor ñàkk lekk ak ñàkk naan rek lay doon loolu nag li ciy farata ci lislaam mooy weeru koor moo ci farata yëmul ci nekk farata rek waaye dafa bokk ci ponk lislaam ci boppam ni julli nekk ponkub lislaam noonu la koor nekk ponkub lislaam moom it kon mënees naa wax ne euh, dayo bi julli am ci lislaam koor am na bu ko jege xëy na julli moom du neex a dendaleeg beneen ponk waaye daal ñoo bokk nekk ay ponk euh, muy weeru koor ci boppam am nag yeneen koor yoo xam ne àggul ci farata waaye day sunna mooy day loolu dañoo bëgg nit ki bu ko manee mu def ko lu baax lay doon dana ci amee tuyaaba waaye nag àggul ci nekk farata kon manees naa wax ne euh, koor kon dëgg-dëgg koor mooy loolu li ci farata itam mooy koor gi ñuy def ci weeru koor bu dee ngëneelam nag ngëneelu weeru koor bokk na ci yonente bi sallallahu alayhi dafa wax ne weeru koor ku ko woor ba weeru koor dellusiwaat mu woor ko diggante boobu lu mu fi def ci ay bàkkaar yu ndaw dañ ko koy jéggal bu ko jéggaluwul sax bu ko tuubul sax bu jéggulu sax yàlla da koy jéggal xam kon day mel ni koor gi ci boppam moo ko moo ko far koor ak moroom ja diggante koor ak moroom ja mu wax ci lu baree bari euh, bokk na ci wax ne sax jëmi weeru koor rek ku ko woor te mu ànd ak ku ngëm te yàlla rek tax ku ko def itam ba tey nee na dañ koy jéggal ay bàkkaaram yu jiitu ak yi mujj sax yu jiitoog yu mujj mooy yu weesu ak yu ñëwagut sax waaye yooyu yëpp nag lañ ci dégg mooy yi nga xam ne nekkuñ bàkkaar yu mag li bàkkaar yu mag yooyu moom yi ñuy wax naa dañuy fari bàkkaar bàkkaar yi ñuy tuddee yu ndaw ñoom la ñoom la ñuy far bàkkaar bu mag moom nit da koy tuub wala yàlla jégal ko coobaree boppam rek waaye duñ ne jëf sàngam moo koy moo koy far bu dee koor nag danay far bàkkaar yu ndaw bokk na ci ngëneelu koor it day fu nit di tàggatoo tàggatu jullit da ci tàggatoo ci lu baax ci lu baax ci ay jëf ak ci lu baax ci jikko lu ci te cee tàggatoo loolu mënees na koo déggee ci bi yàlla di wax ni mu farataale koor ba mu ko waxee la mu ko tëjee mooy eh, ndax ngeen man caa jëlee ak ragal yàlla ak moytu yàlla te ragal yàlla ak moytu yàlla niñ koy firee dañ naan mooy rek di def ndigal yi di bàyyi tere yi kon koor dañ cee day fuñ mën a tàggatoo ba mën a tàmm def ndigal yi te mooy def lu baax kon rek man cee tàggatoo ba mën a tàmm itam bàyyi tere yi te mooy kon rek bàyyi bàyyi lu bon loolu di lu am solo kon ci nit ndax day mel na rek xeetu Euh, lu ñuy tuddee camp xeetu camp la nga xam ne at mi bu jotee dañuy am diggante boo xam ne dañ ci tàggatu ba ñu fa jógee li des ci at mi itam lañ fa doon tàggatoo nu mën ko yóbbaale mu mën a dëkk ak nun euh, mën a taxoo ak def lu baax mën a sax itam ci moytu moytu moytu safaan moytu lu bon te ñaar yooyu rek lañuy ñuy buñ ko boolee mooy tudd euh, ragal yàlla wala moytu yàlla bu fekkee Euh, ak ngëm ànd na ci kon yooyu yëpp ci ngëneeli ngëneeli koor la bokk rawatina weeru koor yi nga xam ne moom moo ciy farata yeneen koor yi dul farata it ñoom it danañ amaale ngëneel yooyu euh, ndax moom it dañ ci tàggatuwaale ndax koor nit bu wooree ci lay gën a mën a bakkanam ci lay gën a mënale bakkanam dara ndax bakkan Euh, buy maanaam dara nit lu ci bari mooy bu fekkee nit ki dafa dafa dafa dafa am cawarte am doole te loolu lekk moo koy may nit ki bu lekkee mën na ko yóbbu ay nelaw bu dul loolu itam mën naa euh, jeex ci bànneex ci moom bu fekkee nag xiif na loolee day néew doole moo tax sax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy dénk ndaw ñi waxambaane yi da ci wax ne ku ci toll ci war a denc bu ko mënee na denc bu fekkee mënu ko nag ne bari lu muy woor ndax bu dee bari lu muy woor dana ko dimbale ba mu mën a euh, not bànnee ak bakkanam ndax koor day dimbale nit ci loolu kon tàggatu googu day tax ba mu takkoo ak jikko yu rafet yi mën a mucc itam ci jikko yu safaanu yi day tax ba mu takkoo itam ak jëf ndigal yi mën a mucc itam ci ci tere yi yooyu daal euh, yépp day dugg ci euh, ngëneelu koor te mooy li muy jariñ nit ki njariñ liit àddina la yi ma wax yu ci bari ci àddina si la waaye àllaaxira ja moom moo ci rawati yonente bi wax na ne am na àjjana bunt boo xam ne ñiy woor rek ñoo fay jaar nga xam ne kon loolu xeetu jagle la kon mooy dañuy dañoo ràññiku dañuy ràññiku noonu lu ñu leen di ràññalee ëllëg euh, ca àjjana loo xam ne koor gi doon woor moo tax ñu am ràññiku googu kon ay njariñam ci àddina ak ay njariñam ci àllaaxira lu lu bari la moo xam koor gi farata la muy weeru koor wala koor yi nga xam ne duñ farata waaye nekk li ñu tudde kooru ngàtt nga ci ci wolof mooy yi duñ farata rek yooyu daal foog naa mënees na koo tàmbalee ci wax lan mooy ngëneelu koor ginnaaw bu ñu waxee mooy lan ba noppi euh, ci ponk yi la euh, julli lañ njëkk farataal waaye teguñ ca lu yàgg bi yonente bi ñëwee Madina rek ba ca déwén sañu farataal koor itam kon noonu la euh, ak farataam demee moom itam hmm. su ko defee kon laaj boobu leer na koor ci boppam mooy lan ak ngëneel yim am kon nan la ko jullit bi war a waajale maanaam ak kañ lay war euh, muskàllaf lay war muskàllaf ku nekk muskàllaf muskàllaf nag li ko tënk rek mooy koo xam ne mat na mat na mat bu dee góor mat na góor bu dee jigéen mat na jigéen mat góor ak mat jigéen nag mat góor mooy àgg ci mën a am doom mm-hmm. ku ci ne ci ñoom ñaar rek mm-hmm. bu matee lam doon mooy àgg na ci mën a am doom mandarga yi nga xam ne bu feeñee ci góor ñu xam ne mën naa mën naa am doom xamees na ko mandarga yi feeñ jigéen tam ñu xam mën naa am doom xamees na ko kon ku ci àgg ci mën a am doom rek nga xam ne bu dee kuy am doom la am na ñoo xam dañu doon doom ndax leneen waaye daal àgg na ci mën a am doom kon dañ naan euh, mat na la ca ko nag mooy mu ànd ak xelam kon ku boole ñaar yooyu rek mooy muskàllaf kon muskàllaf lay war ku dul muskàllaf waru ko ki nga xam ne ñàkk ñàkk nekk muskàllaf nag ay atam moo tee mu nekk mu nekk muskàllaf kooku moom bëgg nañ ñu koy tàmmal ñu koy tàmmal di ko ci teela tàggat ndax koor it taxu ko yomb ci ku ci tàggatuwut ku ci tàggutuwut jéemu ko benn yoon ba nekk muskalaaf rek ñu xëy xëy ko da war a woor mën naa jafe ci moom moo tax yonte bi digle woon ne nañ ci nañ ci tàggat xale yi ci lu waax lépp rek woo julleeg woor ak yëpp ndax leen du ci farata ci xale waaye nag tàggat leen ci boobu demee ba mu nekk farata ci ñoom mu yomb ci ñoom itam dañ koy dañ koy sàkku kon muskalaaf lay nekk ci moom farata moom lay war ci moom waaye ku àggu ci nekk muskalaaf ngir ay atam yu néew it danañ ko ci tàggat ndànk-ndànk boobu demee ba nekk fu mu yomb ci moom euh, loolu mooy kon ki mu war euh, waajal gi nag day mel ne kuy bëgg a dugg rek ci ci camp li ñuy wax camp camp camp camp camp d'entraînement fu muy fu muy fu muy tàggatoo ku ci waaj a dugg mooy dana waajal boppam rek ba gën a méngoog euh, béréb booba ak jamono jooja ak lañ fee def wàllu googu lañ koy waajale kon bokk na ci lu mel ne tuub ndax day mel nag euh, entraînement bi yëpp ci lu baax la ci jaamu yàlla mm-hmm. te nit ki bu dugg ci jaamu yàlla baax na mu jiital tuub mm-hmm. ak nag xam xam attee ci aju xam ci aju ba man koo defee nañ ko nañ ko war a defee mm-hmm. yooyu moo jëpp solo daanaka yooyu rek la sax bu dee waajtaay bi moom la ci des moom day agsi nag nga nekk ca waaye waajtaay bi moom manees na ko waajale tuub ak nag euh, xamlu lépp lu ci aju ci àtte luy tax boobu bu wéree nga xam ne wér na bu ci dere sikkee nga xam ne sikk na bu sikkee itam la nga war a def nga xam ko waajtaay woowu foog naa ne eh, mën nañ ko waajale waajale koor dafa mel ne eh, sunu mbokki ndaw yi nga xam ne dañ koy waajal ci jàpp ne su su jubee dañoo war a gën a yokk seeni dépasse eh, ak yokk jumtuwaay yi nañ gën a xam ne maanaam waajale ko ci tuub ak farlu moo mooy waajtaay wi ci gën léegi ban période lay lay war kañ lay kañ lay war jullit bi maanaam maanaam koor. Uh-huh. kañ kañ gi moom mooy moom bu bu nekkee muskàllaf war na ko. Uh-huh. bu dee weer weer weer bu duggee la koy door a war. Uh-huh. weer dugg gi mooy ñu gis weer wi mbaa weeru baraxlu yi mat fanweeri fan. comme weeru ñaar fukk ak juróom-ñeent. nu séentu bu nu gisee. bu ñu xëyee kon woor weeru koor tàmbali foofu lay ware bu fekkee seenun ko ci ñaar fukk ak juróom-ñeent bu mottale fanweer it bu ñu xëyee moom itam weeru koor jot na dañuy dugg daal di woor kon uh, war gi ci at mi mooy weeru koor ci nit ki muy war nag kañ la koy war moom it mooy bu nekkee muskàllaf bis bi muy diggante bi muy woor itam ci biir weer wi it mooy niñ ko waxee woon léegi diggante fajar ba jant bi so ci fajar jote booba jant bi soo diggante boobu mooy diggante bi ñuy woor xam naa kon dañuy ñëw ci yan ndénkaan ngay dénk jullit bi nga xam ne mu ngi soobu ci weeru koor ci wàllu nan la war a gën a góorgóorloo ci ak farloom ak yooyu bu dee ci li ko jiitu bu ci li ko jiitu moom euh, bokk na ci ginnaaw dañuy bëgg nit ki buy woor mu bañ a yam rek ñàkk lekk ak ñàkk naan ndax loolu mooy dañ ma a wax mooy loolu taayale waaye dëgg-dëgg du loolu rek rek lañ soxla ci woor ba tax na kon nit ki ginnaaw soxlawuñ ci moom ñàkk lekk ak ñàkk naan rek leneen lañ soxla ci moom te mooy di góorgóorlu ci lu baax ak di moytu njariñ loolu mu teel cee jéema mu teel cee jéema ma mu teel mu mu teel cee jub jublu daal ndax dëgg-dëgg sax jamono ju nekk ju nekk loolu lañ soxla ci nit waaye weeru yi nag moom dañ ko ciy gën a Euh, tàggat kon bu jub see itam na ci na njëkk a tàggat boppam moom it niñ koy gisee rek ci ñuy tàggat seen yaram mooy jëmmi tàggat yaram gi bala moo tàmbali ñoom dana njëkk a tàggatu li ñuy tàngal dañ tàngulu mm-hmm. waaw danañ tàngulu kon ki war a dugg ci koor itam mën naa tàngulu moom itam mm-hmm. tàngulu gi itam mooy rek tàmbulee euh, la nga xam ne bu koor gi ak see dana ca gën a farlu mu tàmbali di ko yokk mm-hmm. boobu ak see rek yokk gi mu gën a yomb ci moom loolu foog naa ne moo ëpp solo ci bu ak seegut koy waajale kon dafa mel ne kon eh, li ëpp solo ci ndénkaan yi nga xam ne yaa ngi koy joxe mooy mbir la moo xam ne su nit su ñëwee war nga ko waajal ci fexe tàbbu jaamu yàlla bu ñëwee nga mën a jooxe yi nga xam ne mooy mooy farata yi xam naa ci ci loolu eh, bëgg nañ tamit anticiper tuuti ci nga tënkal ñu attey attey koor atte yi lañ ko waxee moom ci muskàlla farata la ci moom farata ci moom bu nekkee farata ba noppi nag am na luy tax mu wér am na lu ko yàq am na loolu farata ci am na loolu sunna la ci buñ ne farata mooy loo xam ne mënut a ñàkk bu amul rek ngir mi day yàqu bu dee sunna nag mooy loo xam ne def ko lañ bëgg waaye ku ko defut itam du tax ngir mi yàqu bu dee koor Euh, li ci farata moom mooy yéene mm-hmm. yéene yéene yéene koor gi nit mooy ñàkk lekk ñàkk naan gi ànd ak yéene mm-hmm. nit ki da koo def ngir woor jublu ci woor ngir yàlla mm-hmm. def ndigalul yàlla lim digle yéene jooju farata la ci koor ni mu ko nekk ci jëpp jëpp jàmm yàlla yéene farat la ci nekk euh, jaamu yàlla gu amul yéene rek nekkatul ak jaamu yàlla jëf la gu nit ju nit ju nit ki jëf nii rek waaye du ak jaamu yàlla bu dee koor bu bu dee daa ñàkk lekk ñàkk naan te àndut yéene kon wóorut naka noonu li li bu doon kuy li kiy julli li muy def lépp ku ko doon def te yéenewu ci dara itam julliwut kon yéene jooju mooy li ci njëkk te nekk farata jeneen farata ji rek mooy bàyyi lépp lu yàq koor bàyyi lépp lu yàq koor yi yàq koor nag yi ci gën a fés mooy rek lekk ak naan ak ànd bu góor ak jigéen di ànd ànd diggante góor ak jigéen mhm. yooyu ñooy yuy yàq koor yoo xam nit ko war a moytu kon moytu gi kon farata la ànd boole ko ak yéene ñaar yooyu rek ñooy faratay koor mhm. ñaar yooyu rek ñooy farata yi bu dee nag sunna yi mooy yi nga xam ne bëgg nañ nit kii di ko def mhm. waaye bu ko defu du yàq kooram moom it dañ ciy tudd rek xadd xadd te yeexe ko yeexe ko mooy bàyyi ba fajar jege mu door a xadd loolu sunna yi la bokk teel a dog itam ci sunna yi la bokk mooy bu jant bi sooyee rek mu bañ a nekk lu di négaat dara door a dog waaye saa bu sooyee ba mu xam ne sona rek mu daal di teel a dog lu tam ci yi la bokk la leen ñetteel mooy di moytu nag wax ak def loo xam ne ab safaan la ndax yooyu du yàq koor waaye nag dana wàññi tuyaaba ji nit ki mën a amee ci kooram hmm, yooyu seetloo mooy xam ne ñooy sunnay sunnay koor mu mel ne ki su koor jubee da ngay gis euh, mbokk yu bari ci ñi nga xam ne dañoo ragal koor dañuy daal di tàmbali di indi ay wéradi kon léegi gan wéradi la nit ki di di wéradi ba tax euh, koor du ko war waaw ah, mooy ni waxee ne muskaalaf la ko war di war moom lay war waaye nag am na ngant yooyu boo ko amee sañ naa bañ a woor léeg-léeg sax du saña a woor léeg-léeg du léeg-léeg ngànt yi am na ngànt yooyu day tax du du sañ a woor bu wooroon sax du baax bàkkaar sax lay doon am na ngànt yoo xam day dana ko may mu bañ a woor waaye bu ngànt la teggi ko mu fay ngànt yi nga xam ne moom ku mu euh, ku mu dab du sañ loolu moom jigéen rek la aju ci jigéen mooy jigéen ju toll ci gis mbaax jigéen diir bi muy gis mbaax sañu ta woor bu wooree koor ga du baax te bàkkaar lay doon ci moom saabu jàllee nag ba mu laab dana fay la mu waru tam tam war koo woor bu fekkoon ne nit ki itam dafa àgg ci wéradi foofu bu wooree ba kanam xaj na ci ba kanam xaj na ci loolu ñu koy wax nag mooy ñu seen xam-xam jëm ca loola ñu nga seen xam àgg na mën koo xam mën a xam ne kii bu naree xëy fajar ba timis lekkul naanul ba kanam xaj na ci bu àggee foofu te ñu ko wax doon ñu am xam-xam ca lool te doon ñu maandu kooku sëñu ta woor moom it bu ko defoon bàkkaar lay def bu bu demee noonu bu nag mu woor kon lam def bàkkaar lay doon euh, doonte bu bu bu bu bu risqué ba woor ba jàll def na bàkkaar waaye du tey koor gi wér na moom euh, du tey koor gi dina wér waaye def na bàkkaar ndax warut a dugal boppam ci loo xam ne ak lañ ci gën a séntu euh, ñu am na ñoo xam ne nag ñoom mën nañoo bañ a woor rek bu jàllee ñu fay lu mel ne ku wéradi wéradi goo xam ne àggut foofa àggut ci ba bakkanam xacc waaye wéradi na wéradi goog bu wooree dañ naan koor gi dana yokk wéradi gi wala dana ko dana tax mu yeex mu yeex a wér wala sax koor gi ci bopp mën naa sabab ak wéradi nga xam ne wéradi waaye bu wooroon koor gi mën na koo sababal ak wéradi wala wéradi na te bu wooroon koor gi dana tax wéradi googu yeex a wér wala koor gi dana tax wéradi googu yokk ñooñ ñëpp ku ci ne sañ naa bañ a woor sañ naa bañ waaye nag bu bu jàllee ba ngànt la dañ day fay day fay koo xam dafa àgg ci néew doole ngir ak mage néew doole goo xam ne xam na ne jeex na mun du dellu ginnaaw moom ngànt loo xam du jeex moom du jeexati euh, ngànt lu mel noonu kum dabitam moom yàlla ko teggil koor moo ko tegoon ba mu amee kàttan bi mu amatul kàttan moo ko teggil kooku moom ko da ko lañ ko ko teggil ndax ngànt lu sax ndax am ngànt lu teggil nañ ko ko diir bi diir bi muy am ngànt li bu ngànt li mu fay ku ngàntam du dañ nag kon mooy teggil nañ ko ko rek benn yoon moom mu jeex lu mel ne koo xam ne ak mageem moo tax ba àttanatu ko attanatu ko moom ko naroon def. mbokki jigéen yi comme mm, ñi nga xam ne bu jubee dañuy layee nàmpal ñi ëmb ñaar ñooñu ñan la ci lislaam togg ñu ñu ñu bàyyi ko. waaw ñoom ñaar ñëpp itam nag sañ euh, sañ nañ sañ nañoo bañ a woor kii tollu diggante ak kii nàmpal bu fekkee bu fekkee bu fekkee. ki tollub diggante mbaa muy nàmpal bu wooree kooram mën na ko lor moom walla mu lor doom ci boo sañ naa bañ a woor bu fekkee mën na ko rek la ñuy wax waaye bu wóorul ne da koy lor moom walla mu wóor ne day lor doom ji moom lor ju lor ju tar mu daal sañu ta woor ndax boobaa moom it bu dee loru boppam la tàbbal na boppam ci lu koy lor bu dee lor keneen moom moo rawati kenn du def luy lor keneen moom te tay ko waaye bu fekkee nag lor ju lor la waaye xam ne àggut nag ci benn dayo bi boobaa ba tey nag dañ naan sañ naa bañ a woor sañ naa bañ a woor bu koor gi jàllee euh, bu ngànt la dañee mu fay moo xam nàmpal la loon def moo xam dafa toll nag diggante macha allah sëriñ Cheikhouna laaj yi tontu bi leer na lool xam naa waxtu wi dafa mel ne jot na kon dañ lay jëbal kàddu gi rek yan kàddu ngay tëjee. waaw tëj gi de xanaa ni ñu tàmbalee woon rek ñaan rek yàlla àggale na ci ak jàmm defar nu ak jàppandal tam ban defe ko ni mu ko bëggee jotale nu itam ci yiwum ci liggéey wépp ak rek xanaa nit ñi di gën a bàyyi xel rek ci lépp lu nuy bëgg a def nu fexe ba xam la ci aju lépp ba xam nañ koy defee ba yàqoo ñu xam nuñ koy defar bu dee luñ maa defar la bu dee luñ mënut defar tam ñoo xam ne yàqu na la ca lam laaj daal ñu def ko sëñ hmm. bi loolu la dig diglee nit ki day jàng xam mbaa laaj mm-hmm. day jàng xam mbaa muy laaj balaa def dara mm-hmm. waaye du dugg ci mbir te xamut mm-hmm. la la ca aju surtout waxat xarama rabbuna alal mukallafi fixlan bi xayri ilmi xukmi sarri la Sëñ Tuubaa wax kon euh, lii rek la ci émission gàggantiku jublu ngir fas yéene euh, ñëw ci boroom xam-xam yi laaj leen ay tomb yoo xam ne ay question yoo xam ne nit ki dana ci mën a jariñu kon dafa mel ne ki nga xam ne dem na ci GMT TV rek jël téléphone am mën a seetaan émission gàggantiku bii rek laytaayee ko koor dana ko jariñ lool euh, kon Serigne Cheikh naa ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant di la gërëm ñaan suñu borom mu euh, tawféexal sa xam-xam kon mbokk yi mi ngi noonu seen émission gàggantiku tey ñu ngi woon fii ci Al Azhar doon dalal Serigne Cheikhouna Mbacké Abdoul Wadoud émission gàggantiku nag danay am incha allah la 23 bu nekk ak le 9 ci weer wu nekk le 9 ak le 23 lay am euh, kon ñu di jox euh, daje beneen yoon incha allah di sant ñi nga xam ne ñoom lañ àndaloon ci wàllu xarala gi sëriñ Abdou Khadir Bousso ak ñim àndal euh, di sant mboolem ñi seetaan GMT TV asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waj'alhu maskana xurujin min dulam linnuuri wakfi anhu kulla man dalam